asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si naa def. maa ngi fi alhamdulilah nuyu naa la sëñ bi tur bi ak fay wootee. eh man la Mamadou maa ngi fii ci Espagne. Mamadou Espagne waa Espagne ñu ngi ci jàmm. waaw côté bi ma nekk ñu ngi ci jàmm. alhamdulilah yàlla na jàmm yàgg Mamadou. ana eh, suñu papa Idi Idrissa Seck. Mhm. <laughs> mu ngi ciy jàmm. loo wax ci sa pa loo wax ci Idrissa Seck. waaw waaw ke xam nga keroog neewoon naa waxoon naa la day ak neuf la moom ak Adji Sarr ñoom mm-hmm, mm-hmm. <laughs> soo ko jàppalee mujj gi yow da ngay doo xam noo waxoon naa la. Mm-hmm. d'accord waaw léegi dama bëgg ngeen changé titre bi quoi. ñu changer titre waaw léegi da ngeen di def procès procureur ak <laughs> Ousmane Sonko. <laughs> Badou. <laughs> si parce que Mame Mbaye Niang wax dëgg yàlla moom eh, nekku ci dara de moom xaalis lay uti mun naa xaalisam yéeg wala mu wàcc mais munul tere Sonko mu doon candidat. Hmm, du ci dara hmm. procureur moom moo seet benn jakar man bu war a uti ñaari téeméer dem jox yaayam fonde ngoon jàppale mam bay ña mi ministre am fu muy foraatu jàppale kooku moo ko gënal benn jakkat ma maan bi daw hmm. hein ci weer bi procureur boobu moom moo procès ak Ousmane Sonko parce ñun mandat ki yow amuñu benn intérêt intérêt bi mooy kee moom wax dëgg yàlla nee tooñ nañ ko léegi juge bi nee na waaw tooñ nañ la waaw xolam sedd na léegi ba moom génnoon na beneen moom kontaan na moom xaalis bi sonko néewul da koy fay xam nga sonko bu bëggoon fay def na appel waa ko léegi xam nga ko léegi Mame Mbaye Niang yoonam nekku ci li léegi même su defee appel moom xaalisam xëj na lay bëgg ñu wàññi ko ñu yokk ko moom moom munul daal ci Sonko léegi procureur mi nga xamante ne moom moo nekkal Sénégalais yi moom moo nekkal Sénégal moo ñu nekkal ñu citoyen yi moom moo tànn Mame Mbaye Niang kese te wóor na la moom faalewul Mame Mbaye Niang xam ko sax bu ko bu sax moom mooy nekk ministre place Mame Mbaye Niang faalewul kooku mais ki nga xamante moom moo ko samp foofu ki ko samp foofu ki ko samp foofu ah. moo indi li ñëw lii lépp kenn ñemewul wax turam article quatre-vingt-deux dox xam nga mu ngi dox comprendre léegi Mame Mbaye ak ak Ousmane Sonko procès boobu jeex na même su continuer di def rappel ba at bii di ñëw munalul Ousmane Sonko dara li nit ñi ragal moom mooy eh, Sonko mu nekk mu nekk candidat Mame Mbaye munu ci daa léegi procureur moom moo des moom ak Ousmane Sonko képp ku liggéeyul Sénégal képp ku liggéeyul dakaar képp ku am problème Dakar bul jooyee ci tur Mame Mbaye Niang ci tur procureur de la République parce que moom moo ne woon yoonam nekku ci ñaar citoyen la comme moom mooy poursuivre man yaakaar naa day poursuivre pour intérêt Sénégal intérêt Sénégal moo woon Mame Mbaye Niang bi mu démissionné en tant que ministre mu ne day laaye odeuram mu laaj ko ci ci ci ci ban ban sa ban odeur ngay laabe Mame Mbaye Niang wax ko parce que Mame Mbaye Niang nee na Prodac turam dara nekkul ci Prodac mais moom dafa dëgg affaire affaire boobu rek moom mu démissionné mu ne di laawi léegi orsawee lañ koy laawe wala meew lañ koy laawe mhm. léegi waa pale laawe nañ ko meew dimanche lundi ñu ne continuel nañ ci teg conc quoi boobu conc mu ngi ci kaw woowu Mame Mbaye Niang moom musul def dara même en tant que ministre démissionné bu dee Espagne fii yow mënoo mënutoo nekk ministre parce que loolu mooy yàpp eh, président bi sax munu ko moom moo décret mais munu ko soo démissionné il nga teg ci table bi ñu ñu yóbbu ko bi assemblée ñu xoolaat lan moo tax nga démissionné parce que yooyu yaa ne da ngay laale sa odeur hmm. moom nee na Prodac dara moom jotewul dara ak Prodac nañu waxante dëgg Sénégal Sénégal ngay gis ñu taxaw ñu ne location dafa cher Sénégal yëpp ruus nañu ne Sénégal ñun depuis mille neuf cent soixante ñun ñoo jël yëpp tax taaj ko foofu Dakar lépp Dakar Kees Mbour Dakar foofu la location cher soo demee ci village yi ba léegi mun na chef village yi daf lay may terrain dimbal la tabax même bu dee néeg ñax yow ak sa njaboot nga dugg loolu Sénégal rek la am mais ñunu ñu ne président location dafa cher Dakar ak Kees ko war de dañuy ne président Sénégal yëpp te néegi ñax yi soo leen laajee na yàlla xamuñu sax ñaata lañ koy luwee mètre école ci àll xamuñu ci dara Sénégal li muy doxee xamuñu ci dara ñoom daal lu jógee kees Dakar loolu comme léegi Ndar tamit commencé na am pétrole léegi ñu daw dem côté boobu tam léegi da war a wax sa président dëgg hmm. gis nga côté bi nga ne lii seer na jaxase ay nit Sénégal bis boo déggee dakaar ñu ne ñoom jooy nañ diw dafa seer ñun kee da ñun kee dugg dee nañ parce que man man tabax yi ñuy def foofu yëpp da ngay jënd ba pare prix Dakar di sept mille nga daan fay tonne pour yóbbu ko dix-sept mille francs wallaay ngay fay pour yóbbu ko ko léegi ki nga xamante ne moom moo ngi jënd prix bi kooku bu joxee mu ne dafa seer xam ne kee moom dafa de léegi location bi comme ñoom ñoo yor lépp ñoom ak ministre ndaw ñoom ñëpp dakaar foofu lañ dëkk même ku ñu fal Kédougou xamul lu dëkk boobu de hmm. moom moom moom xaw kase boo ko laajee Tamba xamu ci dara moom mu ngi eh, point xamu ci dara ku ci kuñ ci fali folum hmm. tamit mu ngi mu ngi dakaar foofu léegi yow mun ngaa jëlee ab réew yëpp tànc ko Dakar foofu nga taxaw ne location bu mu seer yow yooyu mos nga ko gi indi li ñëw fii yëpp gis nga billahi wal Sonko bu yéegee bis bu yëkkatiwul mbaar moo mu nekkee foofu place mu yóbbu ko ci digg Saalum nga xamante ne ñoom muusuñu français yi ñu ne Sénégal français la ñuy jàng français yi ñuy toppandoo demal Paris Paris capital bi nekkul ci wetu géej parce que xam nañ ne géej ñi am xaalis moom mun nañu financer foofu ba mu nekk dëkk mu raw capital sax ñëwal Espagne demal Madrid amul géej parce que am nañ ne fi am géej soo ko yóbbee capital léegi fi amul géej ñan ñoo fay nekk. Mhm, dëgg la merci man dem naa Allemagne. su ko defee ñuy ñuy fexe di gàttal. demal Berlin parce que Berlin amul kan amul amul ñu ngi euh, bi ñi bëgg dugg wax seen xalaat ci ci ponk yi nga xamante ni moom leen den moom leen leen daal di indil su ko defee rek ñuy jéem a gàttal maximum ku ci dugg rek def benn 4 minutes su ko defee ñëpp mën a matale naam ñëpp ñu dugg sax waaye ñu may euh, euh, ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ci ligne bi ñu daal di mën a dugg ñu ngi lay jaajëfal Mamadou bu baax a baax nga nuyu ñu waa Espagne ñu fàttali leen ponk yi mooy Ousmane Sonko procès mag Mame Mbaye Niang daal nañu koy renvoyé ba 8 mais bi ñu daal di rek euh, dëtmal Amady Diouf moo daal di euh, jël boobu lay ndogal moom mi nga xamante ni moo waroon na euh, présider boobu lay science beneenu ponk bokk ci plateforme bu bees ñu daal koy lancé mu daal di tudd li nga xamante ni rek mooy F24 ginnaaw am 23 F24 daat nay juddu ni ki euh, démb ni ki dimanche bi la ñu ko doon lancé ci naka noonu ñu ngi daal di xam ne lu tollu ci 24 entité maanaam ay groupe d'organisation politique ñoo ko daal di ëmb mu mel ni daal ñoom taxaw nañ temb xeex li nga xamante ni moo ñeel troisième mandat beneen ponk it bokk ci euh, euh, cour d'appel ci mbirum ami Ndiaye nji bi bi ginnaaw Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom ñi leen nag seen procès bi ñoom it daan nañ leen koy renvoyer ba le 15 mai bi ñu man mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si noo def. maa ngi fi alhamdulilah sañ bi nuyu naa la tur bi ak fooy wootee. Ah, maa ngi jégalu ci tuur bi bu baax. amul benn problème da koy leb. waaw damay leb maa ngi leb tuur bi macha allah leboon nañ la ko bu baax a baax. waaw kay bon ci mbirum procès bi lay wax surtout ñi nga xamante ne mooy borom jakartaay ak ñii du taxale mhm. tey boo xoolee ci weeru koor lañ nekk soxna si gis nga ñii dañu ameel ak dañu ameel ak torop torop torop torop dañu ameel sénégalais yi ak kenn mënul dem kenn mënul dikk mhm. ñun ñi nga xamante ne ci takkale yi ndaw yi lañ nekk xam nga ci ay moto yi nii moto jakarta yi sans moto ñun mu ñu liggéey mun ñu def dara mais tey ñu xamante ne def nañ procès bi nga xamante ne ñun ñoo gën xam ni tey lii nii dañ koy renvoyer ñoom xam nañ ko de billaay xam ñu dañ koy renvoyer tey laylatul xadri bàyyi nii ku nekk yaa ngi jéem a taxale pour looy yóbbu sa kër pour tey say njaboot dund hmm. ñun ci lii lañ mën a taxale te xoolal ñaata moto jakarta lañ jàpp te xoolal ñaata nit ñoo toog nekkuñu di liggéey tey mm-hmm. tey ñun ñi nga xamante ne jour bi lañ mun a daw dépense pour génnee joxe dépense fajar lañuy ñuy yeew dem taxale ji joxe dépense mm-hmm. mais dafa métti suñu boor quoi billahi suñu nguur gi amee ak buñ ñu amee la mm-hmm. wóor na yàlla bu dalee seen kaw te du leen jig te wóor na yàlla du leen jig loolu du leen jig dafa métti quoi neexul quoi ñun des fois sax da toog sax da ngay bañ a dëkk Sénégal sax doo ko bëgg bu man sax dama bëggul dëkk dama amul envie sax dëkk Sénégal ngir li injustice bi am Sénégal nii da jàpp nit ci bu dara amul mm-hmm. jàpp ko ba pare tëj ko prison ngay ut ay looy teg ci kawam soxna si dafa métti mm-hmm. mm-hmm. billaay lu ñuy dund Sénégal dafa metti dafa métti torop maa ngi jégalu ci kàddu bi sama xol moo fees lu may wax sax xaw ko. Mhm, dafa metti di jégaluwaat bu baax. dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko mu nekk tamit kàddu yi dëgg wax dëgg fa yàlla ku xam ne Sénégal xam ne jamono ci ñu toll nii li fi gën a dox bokk na ci cag-cag te ku ne cag wax moto yeneen yi nga xamante ni jug nañ ngir mën a liggéey ak seen moto loolee yëpp tey ñu gàntal leen ko wax ni benn moto du daw dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni wax na ko mooy que ni metti na torop am na ñi nga xamante ne jàppoon nañ seen ay moto ci mars euh, manifestation ba la ñu weesu ba tey pour ñu jotaal seen ay moto problème la mu nekk